ginnaaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Muhammad sant sant sang sang si muy Seydina Muhammad di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan euh, ci weeru koor yu ñu nekk yàlla nañ ko commencé ci bisimilah rahmaani rahiim àggale ko ci alhamdulilah rabil aalamiina luñ ci jàmm yàlla yàlla nangul nu ko ah bàyyi góor nag waxtu moom yomb na lool wax dëgg yàlla ginnaaw bi ma ko jaale àdduna yëpp jaale ko Parcelles Assainies jaale ko njabootam paabu paabu paabu paabu jàmbaar la woon. Pabu bu amonu pabu la pa bu beugon kadom la pa bu fonkon bopam la pa bu daw ba fatu la añam ak reram mankil won waye musul toog man dama nan waxtan ak mom añam ak reram mankiwul dara mankil dawul dafa daw ba fatu xandor nak bu damo ci war waccina ah man dama nan def bu mo wër ba pare genn dama waxtan ak mom mu ne ma Modou lu mu song dana ko daan ndax damaa kontaan ci moom moo wax de ma nga ci dëgg maa ngi dama woor mu ne ma Modou loolu lu mu song dana ko daan ndax kontaan naa ci moom dama ñëw ci mbir mi rek na ko demal mbir mu tëngee ba togguma ci ay tànkam kon donc ñoo koy jaale àddina bépp bokk ak Modou naqar ak njabootu Baye Gora yëpp nag bàyyiwuñ kenn ki gën a mag bi ki gën a ndaw xëy na Modou moom la yàlla jox coow li waaye ñu ko mag rek fi nekk koy jaali ñu ko mag ay magam di ko jaali seen famille di ko jaali seen njaboot gépp diko ko jaali Sénégal gépp te xam ne moodu moo ñàkk ko parce que dafa dafa xëroon ci baayam dafa soppoon baayam dafa fonkoon baayam kër gi mel woon ni Modou ko defar yobu na baayam màkk yóbbu ndeyam màkk nekk bañkat comme baayam moom itam kon maa ngi ñaan fii ko baayam féetoon yàlla na yàlla féetu ko fa yalla na fi dess tay ñaanal bàyyam waaw daaw tëdd ci lal nelaw ndax pa bi 4h mu jóg man dak mom di yenn daan jeen mu sen ci koom lamb ju ko dan def nakoy sacc ne lu yalla tuddu tuddu ci barke day xeyna fang waye bayam la dan terbiye top ci ginnaawam suba ak ngone di daw safaak marwa Modou gàcce ngalama moom gàcce